jërë ngeen jëf mbokki internet yi safoo di seetaan Actubuzz TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu dikk ak yéen ci xibaar bu doy waar bu xew fële ca place bu Wakaam euh, muy ñaari xale yu góor kenn ki ay atam toll ci vingt ans ka des euh, ay atam toll ci vingt deux ans muy benn élève ak euh, benn étudiant ñoom nag lañ doon jugé tey fële ca tribunal bu flagrant délit bu Dakar lañ leen toppee nag bokk na ci acte contre nature maanaam buñ sukkandikoo euh, ci euh, journal bi di les échos 16 mai bi ñu génn euh, ci ay booru 18 heures ñaari xale góor yooyu dañee naa bettoon ca plage ba ñu daal di def yaramu neen commencé woon di fonante ci noonu tamit la benn xale bu góor doon romb rek daal di leen di gis bi mu leen gisee moom it daal di tiit daw woowi ñi nga xamante ni ñooy police yi jege woon na gox boobu noonu ci noonu tamit police yi daal di ñëw waaye ñoom bañ ñëwee fekk nañ leen ñu commencé woon di sëy maanaam dañu leen a bett en plein ébat sexuel ci noonu tamit lañ leen daal di jàppee rek daal di leen di yóbbu foofu nga xamante ni mooy ca tribunal Euh, tey tamit euh, biñ leen di àtte ki nga xamante ni mooy étudiant ba moom lam xamle ca kanamu baar ba mooy ni bi mu wàccee dafa doon ñibbi rek kaso waaye daf ko jaaree ci yoonu corniche ba ci noonu la fa daal di dajeek élève bi ba mbir ya commencé kenn ki commencé euh, fóon morom ma ka ca des tamit bañul ba mbir ma am ñoom ca kanamu baar nag ñu ngay jiiñante mbir ma ku ci nekk naan yaa njëkk fóon sa morom abu waaw <clears throat> fa ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk internet u Actubuzz yëpp ah, di wax li nga xamante ne mooy li am fi yow fu di wax ci li nga xamante ne mooy ñaari xale yu góor yooyu ñaari élèves yooyu loolu day wax ma la sax mais dafa xaw a jiw dafa dafa maanaam dafa compliqué jigéen rek nga fekk mu taxaw nga dem di ko foon sax du la ko may waxatuma ak entre góor a góor di foonante bañ leen di jàpp ci yoo xamante ne mooy loolu ji nga booy ji nga kii faa xale góor dañ takk seen tubéy te xam ne ay góor lañu yaa ngi dégg di dox doxinu góor di wax wax waxi waxinu góor yaa ngi dégg góor góor daan day def yëfi góor ana góor a góor di wéet dem bay foonante kii di am nekk si kabaan ak affaire yooyu am yooyu yëpp tamit xam nga da ngay tas daal ci réew mi waaw Sénégal nee naa réew mi jamono ji man dama xamul lan la fi mu ne nii dama xamul lan moo dugg doomu aadama yi lan la lan la lan la fi mu ne lan la man question boobu laay posé yi nga xamante ne nit ñi xam nga góor ak góor ay góor waay tamit lii dafa compliqué dafa compliqué wax dafa parce que dafa nekk loo xamante ni daal waaw lu ñaaw la daal man nit la mun amee image boobu nan la mun a amee sañ-sañu dem di tiim li nga xamante ne mu moromu góoram daal fa Mhm. alors ñoom ñaar li tax mënuñoo sax setal sender maanaam policiers yi nga xamante ni ñoo leen jàpp ñoom dañ leen a fekk en plein ébat sexuel maanaam ñu daal di nekkoon en action looloo tax mbir ma du du daal di neex a weddi. Mhm. waaw dañoo nekkoon en action maanaam góor <laughs> góor tiim moroomu góoram naan day seeg moom loolu dafa nekk lu ñaaw faar nañu wax te ni ji nga mbir mu góor jigéen il faut que li nga xamante ne mooy état bi jël ses responsable lu ñu daal koy criminaliser si réew mi yaa ngi dégg loolu àdduna baaxul ci àdduna. parce que da ngay am na dëkk yoo xamante ay dëkk yonent la woon ci mbir moom lañ alagee suñuy dëkk teg leen ay loo xamante ne tey suñu borom teg leen ci kon dèjà loo xamante ne l'islam moo ko moo ko bañ nekkul keneen moo ko mën a accepté ci li nga xam ne mooy ci réew mi yaa ngi dégg fii góor jigéen bu ñu fi jàpp dañ la war a rendi yaa ngi dégg boo ñu bañ leen fekkee ci kabaan yooyu ñu jàpp dañ leen a war a téye duma leen duma yi metti yaa ngi dégg bu leen mënoo ray sax ñu ray leen parce que lii li li baaxul ci ñoo xamante ne ay magum jëmm la ñii mesure nañu ku ci am ay vingt vingt cinq ak vingt trois ak vingt un ak ku ëpp ku nit bu demee ba see karaw yaram commencé génn muskalaf nga yaa ngi dégg na booy bàyyi seen yi ñuy def te def yëfi góor bu fekkee xaalis moo tax ñu ko def xaalis jaru ko yaa ngi dégg képp ku dee ci góor jigéen sawar nga jëm mooy sa fay amul leneen amul beneen atte boo xamante ne dañ ko at ci àddu ci ci ay am xam safara yàlla suñu borom na du jël benn affaire moo ko njëkk a moom yàlla yaa ngi dégg njëkk koo ba njëkk koo de eh, nga xam ne day yàq société suñu borom ñeneen bu ko ñëw di dooleel xale yi lii nii dañu war a topp xale yi ñu nekk seen ginnaaw man loolu laay ñaan état bi di lan moo waral xale yi dem ba am fit léegi te dama seetlu affaire góor jigéen dafa compliqué. ci affaire yu ñàkk fayda ci ay côté yi ñàkk fayda dañuy obligé sëy si jumaa yi ci place yi ak feneen feneen loolu dafa compliqué daal faa. dëgg la euh, nan nan nga gisee fréquence fréquence bi nga xamante ni affaire bi tamit mu ngi koy am fan yi parce que mm-hmm. léegi mën nañ mën nañ wax ne bu njëkk ba doo nga toog ay jours yu bëri doo ko dégg mais maintenant mm-hmm. mënoo toog benn une semaine te déggoo si ay kaaw góor jigéen góor jigéen mm-hmm. nan nga mën a euh, woowee phénomène bu bees bi nga xamante ni mu ngi am est-ce que du euh, daan yi nga ni moom lañ koy moom lañ leen di teg fii ci Sénégal moo moo di diisul wala nan la demee. waaw parce que comme li nga xam léegi léegi xëy na peut-être daan leen teg fii Sénégal moo diisul mais man amuma euh, ba fi kaayu góor jigéen amee ba léegi amugoo ci benn cas boo xamante ne dañ leen ñii dañ leen day jàppoon ci mbirum góor jigéen dañ dañ leen a condamné wala dañoo criminaliser li nga xam ne mooy góor jigéen yaa ngi dégg kuñ ci jàpp deux ou trois jours nga dégg ne bàyyi nañ ko yaa ngi comprendre ku ci am problème bu ndaw da ngay dégg ne libéré nañ moo tax ñuy am fitu daal koy def mais waxuma la sax kuñ ci jàpp ñu tëj la rek mais kuñ ci njëkk jàpp rek ñu ñu tànd la parka ñu tànd la ñiy téye loxo yi ñiy téye tànk yi ñu comme euh, buñ mosaan nekk école wala daara ba mosaan daw jàng bu ñuy def ñu téye leen tàllal seen nuunara ba mu tàlleeku ñareet ñu baleen ñu dem bu ëllëgee dootuñu ko defati yaa ngi dégg jënga ni da ngay am choix bu baax góor ak góor ci àdduna ba loolu mala sax du ko def ba ci mala yi mala yi nga gis ñuy dox si mbedd mii ji nga mala bu bu seeg moromu moromu góoram mala yi xaj yi xaj yu góor yi xaj yu jigéen la ñuy topp xar yu góor yi xar yu jigéen la ñuy topp loo xamante mala sax imagine du ko def kon boog nit bu bu bu nit di jël intention def loolu koo dépassé na maanaam dimension mala kooku xamatuma lu mu doon man loolu am lu ma ciy wax. Mm-hmm. ba tey ñu daal di wax ci leneen muy benn accident bu am fële ca Saint-Louis euh, démb ci ay booru 18h benn minibus rek moo daal di saaraan daal di dal ci ay groupe nit yu taxawoon di xaar oto euh, ci noonu tamit secouriste yi daal di nañu ñëw ci saas yi waaye fekk na benn daam daal di cay ñàkk bakkanam ak ñaari élèves yoo xamante ni nii dañ doon xaar taxi ñoom it jëlee nañ ci ay blessé yu grave ba jamono yi ñuy waxee ak yéen ñu nga fële ca hôpital. bu ñu sukkandikoo ci benn témoin bu fekkee woon mbir ma moom nee na oto bii di euh, bi def choc bi dafa doon euh, rek doon moytu benn oto ci noonu tamit la daal di perdre contrôle ba daal di dal ci nit ñooñu euh, bu ñu sukkandikoo itam ci suñu benn source jeudi bi ñu génn ci même zone boobu noonu benn taxi rek daal di na fa woon benn nit boo xam ne yaramam neexul mu daal di mujjoon ñàkk bakkanam ci saa si ba looloo waral sax jeunesse su quartier boobu noonu ñoom daal di nañuy génn di taal ay punaak yu ni mel ngir manifester seenug naqar ci oto yi nga xamante ni buñ egsee foofu duñu daw ndànk lu dul ne dañuy fel nit yi. Thank you.